jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24 point net am mbégte am contentement bu baax a baax a baax. di dellu siwaat fii ci biir Sunugal 24 point net ci émission bu mag bi di taarixu réew mi. ni ñu koy defee à chaque fois rek waaye tey fi ñu jëm kajoor la jëm. ki ñuy bëgg a waxtaanee. bari na lool ñu ko xam ci réew mi waaye bari na lool ñu ko umpale fii ci réew mi. ki ñuy bëgg a waxtaanee cig njàmbaaram cig ngarmeem cig dignitéem waaye yàgg bañ lool ko noot fii ci réew mi ki ñuy bëgg a waxtaanee kenn la ci réew mi ki ñuy bëgg a waxtaanee mu nga juddoo foofu ca kër amadu Yàlla ki ñuy bëgg a waxtaanee Kajoor la dëkk ki ñuy bëgg a waxtaanee ak njàmbaarteem kenn dootu ko werante ci réew mi Lat Joor Ngoone Latyr Jóob 1842 ci la gane si àdduna foofu ca kër Amadou Yàlla Lat Joor Ngoone Latir Joob cig njàmbaaram cig ngorom tax na ba réew mi yëpp bind ci moom taarix bu am solo taarix boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci réew mi ma nga daanu foofu ca Dexale en 1886 à la bataille du Dexale Ngoone Latir a ko jur Absa Ngouna Aysata Fatim Penda Damelteeñ Latukaabe saa xewar soxna maye ko jur medun saa xewar saa xewar fatma ma ngooneem xol sa ngoñ wa ma jànn leel fay gànna kunun njaan bardaadu geedoo geet njaajaan njaay abu daardaari kull kuy daw bërgëj wa sur le plan scientifique Lat Joor ñaari dimension moo tax ñu teel ko jàpp ndax Amadou Ngoone Sabel bi muy xeex ak baayam dànki amul ñaar fukki at ak juróom-ñaar Ngoone Latiir de Ngangarang bi muy xeex ak baayam amul fukki at ak juróom-ñaar waaye Lat Joor bi muy deful njàmbaar fukki at ak juróom-ñaar la am njàmbaar googu moo tax 1863 mu dàq Pinet Laprade ca ngool ngool rey 144 espay mëstaam ci fàttali Pinet-Laprade dajeem ak ma Dior mu ngi jugee ci imposé li nga xam ne mooy raay bi li nga xam ne moo doon la monoculture arachidière li nga xam ne moo tax tubaab bi di noot nit ku ñuul ba faaw Lat Joor ci njàmbaaram bañ ñu dajee décembre 1863 Lat Joor dàq ko bi mu ko dàqee gouverneur daal di bind mu ma Lat Joor toroxalee il faut que ñu utiliser le canon canon ñu ngi ko njëkk a utiliser 12 janvier 1844 canon bi ngeen di dégg fu ñuy wax Looro ma nga ca département bu Kébémer boo génne di jëm yoonu Touba boo eggee ci dëkk bu ñuy wax Looro tey fa góor gi Aali Sekk tëdd am na fu ñuy wax Ngin tool ba mu nekkoon fa ñu sampoon canon ba ba léegi benn ñax du fa sax ca la ñu raye lu bari ci kajoor rey boobu ñu rey lu bari ci kajoor ci la Lat Joor gàddaayee ànd ak ku ñuy wax Demba War Sall ndax Demba War Sall moo doon fraka ba Demba War le principal naa de Lat Joor moo ne ko dañuy gàddaay mu ne ko fuñ jëm mu ne ko nañ jëm ci almaami Maba Jaxu Ba ndax moo fi xeexal lislaam bi muy dem it Demba Sukko bi nga xamante ni moom ak Ngoone ñoo bokk ndey ak baay Demba Sukko moo jur Samba yaay Demba Sukko mi jur jeeri jeer ndee la bi nga xam ne ñëw nañ bay tolloog ci la ko Demba War Sall ne ko nañ jàdd mu buur siin ku mëndoo fen Lat Joor dafa tuuti ko buur siin xoolee daf na ko yow yaay Lat Joor mu ne ko waaw mu ne ko yow da ngaa luubu waaye doo buur buur day gudd te mu ne gees ne ko sama fas yu mag neex la tuddoon il est bon d'avoir un grand frère à partir d'aujourd'hui je le nomme Malaw la force du lawbe benn résiste pas dans sa masse mais dans sa capacité à vendre le bois wax ji nga ma wax nag tuddee nga naa ko Malaw mu ne ko luy Malaw mu ne ko mooy lawbe lu mu rëy rek na ko mën a gore mu ne ko tuddee naa ko maalaw mu ne ko luy maalaw mu ne ko mooy lawbe ci loolu nag ci la ñu waxante ñoom ñaar mu daal di dem nag Lat Joor daal di dem ci lañ daal di waxante ñoom ñaar nag ñu daal di jàppante nag Lat Joor daal di gàddaay loolu nag day doon benn diggante boo xamante ni diggante bu sori la ndax Lat Joor day dugg si nag ci almaami Maba Jaxu Ba almaami Maba Jaxu Ba tëdd ba guddi gis ci wilaayaam ne la Joor a dugg si mu yónni taalibe bu ñu naan Baraan Cissé ne ko boo dajeeg Lat Joor nu am yéen ñaar ngeen xeex ba ko gagné nga ñëw wax si ma ko Barham Cissé mi ngi njëkk a yem ci Ibra Fatim Sarr mu ne ko naam Diop mu ne ko duma Diop mu ne ko ana Lat mu ne ko mu ngi nekk ca gannaaw mu dajeeg bu naama Joor di ko def ba egg ci Dembawaar mu ne ko duma ko sant wa ne ko naam Diop mu ne ko duma Diop mu ne ko ana Lat Joor mu ne ko mu ngi nii ci gannaaw mu ne ko luy say tànk mu ne ko almami ma ba joxu ba moo ma yónni nee na Lat Joor na tuu dugg ci lislaam bu tuubut ñun ñaar ñu xeex mu ne ko gis nga fas wala jébb ñeenti tànk dóobu du ko wat ba naan ko mu ne ko nag dina tuub Lat Joor moom ne ko du ma tuub te dinaa dugg Baraan Siise ne ko almaami Maba Jaxu moo ma jàngal alxuraan moo ma tafsiral ñu waxante ñoom ñaar Demba Waar ne ko Lat Joor yaa ngi mel ni dootoob ceddo li ci sa xol bi du fi jóg sa karaw gi day sa mu ne ko silmaxa jóob mu ne ko silmaxa naa ci li ma nekkoon lépp ci li duggee nag ci Maba joxu ba tubaab bi bi muy ñëw fekk na réew mi organisé fekk na kàddu palukaay am fekk na boo demee Siin wala nga dem Saalum fenn fuccu ne fi ñu doon falee fekk na mu am fekk nañu modèle d'organisation yoo xamante ne fekk nañu Linguère am fekk nañu lamat am fekk nañu farakaba am fekk nañu bummi am rôle yooyu yëpp kenn ku ci ne da nga ko doon am fekk nañu ay la wax nekk fi fekk nañu kenn ku am nga ci cër boo xam dañ la koy am démocratie fekk nañ ko fi damay wax ne boobu lépp fépp ñëpp loolu mooy démocratie assemblée législative dafay amoon à l'époque tubaab bi bu mu ñëwee dafa am benn porox ndoll bu mu awoon donc tubaab bi bu mu ñëwee dafa am prox ndoll bu mu aw bëgg indi ne dafay évangéliser bëgg indi doole indi impérialisme waaye boobu suñu société yi organisé wu nañ bu baax a baax a baax waaye boobu dafa bëgg a jaay doole bëgguñu koo jaay loolu rek moo ko fi indi waaye bëgguloon organisation dafa ñëw gi fa ay tubaab beeg Lat Joor moo ko moom wax ba ci wax lu mu wax Lat Joor suul ko